suñu mbokk internet yi dal leen ak jàmm ci seen ñaareelu round-up de l'actualité fii ci Diaspora bi TV comme chaque semaine dinañ leen indil li gënoon a fës ci xibaar yi tey nag dañ koy tàmbalee ak politique ak président Macky Sall mi nga xam ne bëgg na delloo si waat kii di Khalifa Sall ak Karim Wade ngir ñu bokk ci élection 2024 yi ñu dëgmal bu loolu weesoo ñu jàll ci société ak li xew si tali bi nga xam ne mi ngi continuer di faat ay bakkan yu baree bari ba tey ci société ñu jàll ci soxna soosu nga xam ne dañ ne woon bu dul dëmm def na yëfi dëmm soxna si dellu si waat indi beneen melokaan bu bees suñu actualité people nag dañ ci wax ci kii di Kaliphone ak Adji Sarr yoon teg loxo influenceur boobu di Kaliphone Sall pour viol ci sport li ci gën a fës di match Sénégal bi fi jot a jàll mu si doon jàkkaarloo ak waa Iran lii moo gënoon a fës ci seen actualité de la semaine ak diir ñu yaatal leen ko

waa boobu buñ ko taxawalee Khalifa Sall ak Karim Wade moo ko tax a jóg bu ñu fàttee itam intercoalition Yewwi Wallu bi defoon benn proposition wu loi similaire boobu Macky Sall bu jëlee décision bi est-ce que du dafa bëgg a bokkaat ci élection 2024 yi ñuy jublu dinañ leen ci indil ay leeral bu ñu jógee ci politique ñu jàll ci société ak accident yu bari yi nga xam ne ñi ngi xew ci tali bi bi ci gën a fës di accident boobu xewoon ci yoonu Mbuur bi jëm bànjaa te ñetti nit ñàkk ci seen bakkan boobu rekk nekkul accident bi jotoon xew ci yoonu Mbuur boobu ndaxte amoon na beneen accident bu fa jotoon a xewit ba ñaari pèlerin ñàkk ci seen bakkan ñu dem ba Tàmba gis ne am na beneen accident bu fa xewit bu metti boo xam xam ne neuf personnes ñàkk nañ ci seen bakkan ci diggante benn sept place ak bus accident yu bari yi doon lu jaaxal askan wi ñu koy mettitlu tey sàkku ndimbal ci état bi ngir accident yi mën a arrêté buñ ba tey ci société soxna soo su ñu ne woon dëmm la wala bu dul it dëmm def na yëfi dëmm soxna si ñëwaat indi beneen melokaan daal di sangu ba set sañse ba jekk di xam le ni moom du dëmm xamul sax kuy niroog dëmm doomam moo feebaroon ba moom aussi mu jëlee ci feebar ci la ko yàlla tege nattu yi la ko yóbbu foofu nag moom nee na naawul deful dara ba yegg foofu dafa yéeg jàppandu ba dem foofu fa nga xam ni fa la ko sapeur pompier yi jéle bu joggé fofu ñu dem ci people bi nga xamné li ci gëna a moy digënté Sall ak Adji Thiaré viol amna wala amul légui nak loolu dañ koy bayyi ci loxo justice mi nga xamné mom moñu ci mëna tontu ndax ki di procureur jàllale na kii di Kaliphone Sall mi nga xamné Adji Thiaré daf ko accuser ci walum sàkku coups blessure blessures nak taxul batay Sall mom nanguwul décision bobu ndax té néna takewul lalewul ci luñuy ñuy naan viol defu ko benn yoon nanguwu ko tey nanguwu ko suba ak sport nag lañ koy jeexalee Sénégal day mën nañ ne mën nañoo xaar ak xel mu dal lii di coupe du monde bi ñuy waaj dëgmal ndax seen match boobu contre Iran gayndey Aliou Cissé yi ñëw nañ dëggal seen bopp daal di wane njàmbaar bien que Iran équipe bu compétitive la ñëw nañ daal di wane seen bopp def seen bloc bas te exploité bépp contre attaque taxul ñooñu Aliou Cissé yi ñoom itam def seeni yëf ba daal di def seeni yëf ba daal di def pression équipe bu iranien bi ba ñu marqué contre leur camp bi ñu jógee ci loolu nag ci la seen joueur boobu di Asnun, ñëw moom itam daal di marqué benn but loolu moo waraloon match nul bi defoon un but partout jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jox dig daje ci yeneen fiti up fii ci Diaspora bi TV.